bare bari jurul jàmm ci mooma Macky Sall la Macky Sall am ngir jubbanti bi di amee lu jara laaj la yéen a kaay gii ñu xëy fekk fa Serigne Mboup homme d'affaires bi Serigne Mboup mi nga xam ne moo gagné Mahmoudou Ndiaye Rahma ca diwaanu Kaolack Serigne Mboup andi na ay leerala nee na dama bëgg mu leer nañ man bokkuma ci benn bokk yaakaara yéen a kaay gii di lay jeko njiitu réew mi di président Macky Sall léegi tey moo amal li nga xam ne mooy ab remaniement ndax conseil des bi nga xam ne moom la ñu génn la njiitu réew mi tàggoo ak ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi Macky Sall nag jamono ji ab gouvernement bu yees lay taxawalaat journal bi nee na na ay ministre yoo xam ne dañoo tiit ba maara day taal yi est-ce que nag Macky du nag jël ay daan lal ko ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci élection locale yi élection législative yi fanweeri fan ak benn la état bu Sénégal wax waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom nag yaakaaruñu lii nga xam ne Macky Sall wax na ko su dee nag waa APR ñoom bun waa Sambo am nañu si njort ba rafet yéen a kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall moom nag nee na li mu participer ci élection yi ba mburu ak soow jóge fi nga xam ne mooy Thiès kontaan na ci loola yéen a kaay gi di Sud Quotidien daal di xëy wax nag ci frontière Mali yi nga xam ne tëj nañu ko loole nag tax na Sénégal ñàkk na ci lu toll ci juróom benn téeméeri milliards yéen a gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu coup d'état yi nag ci Afrique de l'Ouest mel ni lu nekk pandémie waaye nag coup d'état yi kañ lay jeex moom la journal bi di Direct News xëy di laaj ndax na loola yéen a gi di Rewmi Quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Syrie nee na Omar Diaby Diab Diadis boo xam ne franco sénégalais la daan nañu koy libere ci atum 2020 la ñu ko tegoon loxo groupe Aya Tahrir moo ko tegoon loxo yéen kaay gi di libération xëy dañu xibaar naan ñu fan yi yéen a ngi doon dégg ñaari góor jigéen ñi nga xam ne tegoon nan leen loxo ci jumaay Sicap Karack journal bi nee na kenn ki nangam jàllo la tudd ab jàngalekat alxuraan la baayam mooy garde jumaa jooje moom mi nga xam ne mooy jàllo mi nga xam ne moo def ñaawteef gi nee na xamul lan moo ko ko def loo ay atam nag na ci fanweeri at benn keneen ki nga xam ne nag Camara la sant atam toll ci ak juróom-benn dëkk Guinée Conakry moom tim daan nay wax ne nangam jàlloo daf ko menacé tëdd ak moom journal bi nee na am na benn jigéen boo xam ne lépp la filmé lépp la futa yéen kaay gi di Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien nee na njàng meeg njàngale meeg salfaañoo gi nga xam ne moom la salfaañoo tax na niki démb gouvernement bu Sénégal ak jàngalekat yi doon nañu waxtaan waaye nag mbir mi demul cee nga dikkul may laara yéen kaay gi di enquête nee na ndaje moomee lajji dëggantaan la journal bi di Rewmi Quotidien nee na négociation yooyu nag maanaam jurutoon a woote sax li nga xam ne mooy am ndaje ndax nag amul benn proposition boo xam ne gouvernement bi daan nañu koy def bu ñu sukkandikoo ca Abdoulaye Ndoye bu kisam sa yéen i kaay gi dale ko di jee ñu xëy fekk fa sawru sena nee na état bu Sénégal dafa woote ba pare ak i loxoy kese yéen i kaay gi ñu xëy fekk fa Amadou Ba mi nga xam ne mooy porte parole sa daat nay wax ne ndaje mi nga xam ne jàngalekat yi daje nañu ko ak gouvernement bi maanaam jëru ko wone lajj te dëggantaan la yéen i kaay gi di vox populi nee na gouvernement bu Sénégal dàq na nag ndaje mi ba fukki fan ak juróom ñaara ci weeru février su ko defee nag mu andi ay proposition yoo xam ne yu leer lay toona yéen i kaay gi di laas xëy dañu xibaar mbir mu doy waar a doy moo xam ne ci